artistes yi tamit ñu ngi def seen devoir pour sensibiliser la population parce que tamit je crois loolu mooy seen wareef bu naan artiste je crois population li nga xam ne moom la ñuy dund pratiquement comme élément yi ngeen jot a dégg tamit gars yu bëri bàyyi nañ seen concert te ñu bëri tàggat tembe na tamit parce que tamit je crois mënoo nekk si naxar parce que mën nañu wax que ni naxar la naxar la fekk corona bi nekk fii xam nga yu bëri gars yi bàyyi nañ ko instant bi da ngay obligé nga toog si kër comme ni nga ko waxee pour nga euh, respecter les consignes ak euh, les règles d'hygiène tamit euh, gendarme yi tamit ñu ngi génn def couvre-feu tamit pour gën a protéger nit ñi ah, pour gën a protéger nit ñi parce que comme ça su nekk ni ko waxee dañu fàttali rek du doy ah, du doy on Euh, daaw si tamit euh, tantôt tamit ñu ngi wax ay vaccin wala yeneen ak euh, yeneen ñu ni dañuy ñëw Afrique pour tester ay ay vaccin man sama xalaat laay wax sama xalaat sama xalaat laay wax en tant que citoyen man je contre parce que boo xoolee je crois que ñoom ñoom ay boo demee ay Italie ay Espagne ñoo ay cas bu fekkente ne ay vaccin yi ñoo xam ne rek dañ ko war a tester nañ ko tester foofu pour man foofu ñoom ñoom ñoom ñooy ko gën a soxla ñoom ñooy ko gën a soxla instant bi ñaanu yàlla cas yi cas Sénégal gën a yokk nañ ñaan suñu borom li fi jot a am ni ñu fexe ni ko contrôler parce que euh, pour man l' ne n' est pas l' Afrique du laboratoire ba nga xam ne ñoom dañuy yëm wala ñun ñu doon ay cobaye yi nga xam ne dañuy testé. bu fekkee ne dañu bëgg ñun dese nan dem fekk seen malade yooyu je crois moo gën a am importance que euh, instant bi te noonu la demee sur la moyenne de bande fréquence 93.5 KFM comme ni mu leen ko waxee woon tegal leen ay élément léegi dafa am ay quelques sons yi nga xam ne dañ koo collecté mooy son yi nga xam ne artistes yi ñoo ko woy si euh, prévention bon si prévention face à sa maladie muy. Eh, coronavirus ok mi ngi def ay dégâts mi ngi def ay dégâts ñu ñaan suñu borom mu mu yam fi am ah, mu yam fi muy Sénégal muy Europe muy partout à le monde ok noonu lay demee léegi ñu eh, son dib bi nga xam ni eh, woy na ko si coronavirus ajo te nag ñu doon wax te kon ñi duñ ay américain kon aéroport gaz aéroport gaz Sénégal ok noonu lay euh, demee comme ni mu leen ko waxee euh, def yoon pour euh, ñoo doon sama invité dañoo génne dañoo génne benn single single ñu ko tuddee freestyle ci coronavirus ok mais tamit léegi lépp tey dañ koy def laay man daal rek laay man daal rek lay def damay jël instrumental ma balancé ko mais bien avant que leen bàyyi ñu présenté ko. parce que gis naa fi trois le te noonu lay demee léegi dama leen di bàyyi dama leen di bàyyi euh, Thiès ak Ndiokh Fall fi ma jugee di kebe ñëpp ah di jéglu auditeurs yi parce que problème bi jamono dafa naqari instant bi nii mais ñoo ngi woon ñëw nañ ci heure mais montage ñoo ñu téye woon ko ah loolu la. xanaa da ngeen def surcharge xanaa da ngeen def respecté nañ ko sax. Ah. mais xam nga rek. waaw ah. Sénégal mooy Connection. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw maa ngi lay bëggee di la tamit di jégalu tamit si retard bi quoi mm-hmm. jégalu lu bëri parce que tamit xam nga neexul quoi nga jox ñu heure ñu mm-hmm. waa tamit montage bi comme ni ko sama gars yi waxee rek waa di bëggee tamit auditeurs yi ñiy dégg ñëpp mm-hmm. waaw di leen jaajëfal di leen masa coono aussi ci Covid 19. waaw métti na mais nañ nañ xam ni natu natu la quoi. waaw dañ ko boole rek voilà la rek. nañ ci ñaata ñu jóge fii. ok mais tamit la moo tax ngeen jékki-jékki tamit euh, mbir seen wareef la ngeen def benn. Euh, Sall ci euh, feebar boobu nga xam ne mi ngi euh, lëppee jamono euh, la moo tax la moo tax da ngeen jékki-jékki ngeen xalaat que ni c' est normal c' est votre devoir ngeen def kii boobu noonu wala nan la dem bon ci cadre boobu noonu dañuy mën a wax ni comme li ma la ko waxee rek ci affaire de sensibilisation ba léegi xam nga tey ñun bu toogee nii parce que def doom la ak airport ñaari micro la léegi dañoo def benn connexion nga xam ne dañuy ànd def benn genre mooy ni ku nekk di soppi fool di sensibiliser leen après moom nag ñu ngi comme que rajo yi mooy loolu noonu euh, day jàllale muy télé muy lu mati doon ci internet mm. léegi lan teg suñu jéego kooku ka jox leen dëkk te fekkee sax gars yi du dara ñu ne kooku loolu la demee dañ fexe dugg foofu quoi mm. wane ok mais dama gis seen affiche dama gis seen affiche ngeen ngeen que da ngeen def pour rajo tour rajo j'ai pas bien compris da rajo pour single boobu wala da ngeen def rajo ba xam ba xam da ngeen lan wala tour rajo pour sensibiliser ci euh, fléau boobu noonu. waaw Teuff maa ngi rafetlu question bu baax parce que li nga laaj bu bëri dañ koy laaj mais bu nee sensibilisation dañoo xam ni askan bi ñëpp ku nekk am na ci sa droit quoi mm. dañoo war a xam ñun nag te ñun ñooy seen kàddu foog ñu dem ci bërëb yoo mel ni ci ay rajo di leen wax seen bopp ñëpp mën a dégg moo tax ñu jël ngaay ndax ñu koy jël bëri nañ trop moo gën ngay dem dëgg dëgg parce que déplacement yi tamit risque la ñu ne naan dem ngaay bu ñu waxee ñëpp dégg après tamit ñu dem ñaaxeen ay Kebs FM ñëpp ñoom ñu invité foofu noonu pour parce que lii pour man Sénégal ñëpp dañoo war a booloo waa ñu xeexu gis nga même instant bi nii suñ gouvernement bi amul opposant amul dara ñëpp benn ennemi lañu am muy Covid bi muy coronavirus bi. Hmm. kon instant moo tax ñun ñaar ñu boole sax suñu groupe pour lépp ñëpp xam ne lépp benn Sénégal lépp benn la. Hmm. waaw mais mais tamit nekk opposant loolu noonu nag instant bi dafa nekk muy wax ci dëkk bi parce que ñooñu demoon am na dañoo jékki-jékki gis benn séeréer rek bu ndaw Sénégal yi lay rapport bëri na te pour man Macky Sall bu recevoir rapport nekk loo wax mais day gis ay quelques têtes ñu ne ñoom ñoo représenté hip hop gazette fii nii quoi ñu dem pour lan dañoo amoon seen projet te projet nii Covid 19 moo tax ñu annulé ko quoi pour ñu mooy leen xam nga ñu renforcer leen si li ci jotoon dépassé te loolu. nekkul yoon parce que comme ni nit doon wax rek ñun instant bi danoo war a génne suñu poche ñu joxe mais pas ñu ñëw di réclamer parce que instant bi lu waay mën a jàpp ci réew mi pour ñu xeex ak lii nii mooy loolu quoi waroo dem pour ñu lay jox mais dangaa war a génne joxe. Hmm. ok dafa leer bu bu nu analyser moom li mu jot wax nee na comme par exemple euh, parce que mel ni Youssou Ndour dafa génn si poosam am na ñeneen tamit ñi nga xam ne ñu ngi génn kon je crois que tamit face à cette situation dafa war a am ay Two. Yo, Ucho. Yeah, I am a problem. Wow. Wait, Ganda. That eh? team, Ganda. Sure. Okay. Lot of what happened in Kalaket. Akakara set is a avenue in Kalate. You know, we will tell a tower for the Kalate. Lisa MC Def ni balage ni rabe kan gon say falade ki ngeen fi jiital fu mu bokk benn ñoo falade tasaare Ikaw na loo ko kusakal di tat ko se Unyi nge wate kama face to face to yow la des Yo, muna mwa ka po man la mess of des Kibit e kati mani for fans to take the less Impossible to find this in ikra la wer Kupoli wala di taktik pran Funi pepe repel Ti rap ni eminem ti fente mo ti suri emre pepe Kunyi mende jage la mo sende ala enter ma jela Just then, Guru Majir Majir said it can be just only me, boy, me or a babu, then me. Ex, you watch a grind, that is shady.

That's really what. Assalamu alaikum ganni ni yo. Dego ma dego ma dego ma dego ma assalamu alaikum ganni ni yo. Dego ma dego ma dego ma putala assalamu alaikum ganni ni yo. Fi ene takale o shaitan wa falak antika wa nihas. Nabi du fi zalati wa kame nage tay sama khayal masate nage tise dikal nafa nage tadukura misale sifite hatu wa tise ni hai. Nabi never amujama get this cause they jealousy. No front up, no get up, bitch, he's jealousy. It's up, spot, nigga, he's jealous, yeah. never do off, never do off. People can't run in your get rid of all that's my style, that's my style. na ci labet man la soro ma ci ger bi sama def leen taatu ne romb booy góoriwul ku nekk di foo sa bës nguur rek bëgg fin rabu ren de moo ngi wul firi firi bro pékee ñoo ko wëba seen amatul seral sa liggéey biy jaay tàmm ñun ñoo koy seral métti woon dara def dekk ak tey biir sa ñoom la nga defee fal jobo di keebatu keebatu rek doo mi ngi ñëw boo yàggoo nga seetlu yàggatu yàggatu dañuy télé fondal jemu gas asalaamu jàmm comme dañuy nuyoo. asalaamu jàmm comme dañuy nuyoo. asalaamu jàmm comme dañuy nuyoo. asalaamu jàmm comme dañuy nuyoo. asalaamu jàmm comme dañuy nuyoo. asalaamu jàmm. et puis ngeen sër. asalaamu jàmm comme dañuy nuyoo. yaa isin sama boy. dafa di bàqale. ak tic technique laa la dàqale. style bullshit neex mi làqale. mooy dàqale. ràpp neex bay laa la dàqale. ay bay ndeysaan. wane li nga mën a. kër sa day romb ay bay. wane li nga mën a. doo ci mën kus xalaat. dafa di mën a. réew di mën a. sama rab mu fi. kenn du ma doyoo. dugal sa baat di la foor foog foog foog lu fi gën bon baay ñoo fa jaar xam ko ñaar xol di tàng di sara ñaar di dëgg di moor di dëgg di moor te doonu daal yow asalaamaaleykum asalaamu jaww ko la ko la ko la ok Tường hơi thang Yeah, tường, tường, tường Họ Wow hít

fon bi moo ko laasi kilomètre si bi bon ko ñoo di faa nga sa kaw aso tuul lu ñuy tere wax de xit ñi dara dalul dafa leen toogaay wu rek sa ñoon di dañoo saful waaye di am sa jom ak sa firi koy may bu la yéene jàmm jàppal bu dëgg teel sa ngoy bu xal sa waar te nga bàyyi xel noon lay xeex mbir mi doy waar moo ma dundal loo bul jeex tàppe tuuma doonte damay tegg tuuma laa ko tuuma li mel ni doon suba rek daal moo nekk seen kumpa ku ñu tegu ci gaalu xaj boo ñu ci masa gis li ngay wax te doo ko jëf ni ko maa ngi maa ngi koon yes moo ngi koon yaa yaa parce que moo ngi koon yes moo ngi koon e di dega if naa duma dégg jaar wax ma loolu ko man pare naa ma delloo la ginnaaw yow benn jaar bu desee lu rokk ci mais bu wet ak bin booy état laissé ba ñu tegoo gaare yow fañ sagal sa ci ren ba ba dee foog seen coow booy tàmbu leen seen naa ba seet mais ñaawu leen dëkkee boo bugg faalu meen kenn du leen fan daan ay xaaj ngay maa ko wax kuy tontu ma firi la rab te ci dajale ay fond lu nga booy daal dañuy fond bëgg lu ko wax te ñu leen yegg ko sama bopp di waar ñu mel lu xotti bi ngay laamu yoonu gis yow maa ngi gàtt résultat bi ñëpp gis léegi may gàtt respect ci yi ci mag la ma sa teegi naa fils est-ce que dégg nga maam mënoo ma coow ma si kon damay laaj maam jàmmoon du ci am wallaahi jarul négocier dafa kii ni assassin ak policier 在一起。 si nga bokk ma jël ngeen dal. non instant bii mënuñu jël dal parce que ñëpp xam ne la lépp la arrêté. non comme parce que dama gis que ni def seen procès ngeen def convict comme freestyle j'ai pas compris ba xam ne son nga ne dañ koo wala lan loolu laa ko comprendre. si seen procès. saa lay doon waaw saa lay doon mais instant bii nii affaire bi moo téye job bi quoi moo tax dépendre bi. mais ñun def nañ li ñu war a def lépp mais gars yi ñu yor studio bi moom rek moo ci des sànq. ok kon noonu lay demee léegi le mot de la fin. waaw. di big up waa PNS. PNS waaw. am nañ benn numéro bu nga xam leen doon jàpp moom mën na leen see kii wala seen manager. waaw. waaw. suñu gërëm ko. mën na nekk. waaw joxe joxe. bon. waaw. joxe numéro boobu. 76. 659 00 88 659 00 88 ak 77 758 88 59 waaw boobu tamit ok noonu lay demee dafa leen su la mel bande fréquence 93.5 Ngaye FM euh, di bëgg ñëpp di bëgg ñëpp di ziar ñëpp képp koo xam ne yaa ngi si ko soxla di déglu euh, couleur urbaine ak Mohamed Def Connection di leen dox jox rendez-vous incha permanent connection. Yeah, yeah. Dat is on. Dit wil cooler u dan at moment of connection. Tell us the radio. Dat is on. Dit wil cooler u dan at moment of connection. Tell us the radio. Dat is on. teg nañ couleur yi dan ak ma mère def connexion dalal sa radio tappel sa oran teg nañ couleur yi dan ak ma mère def connexion dalal sa radio dalal sa radio ma mère nga am lu bari tegal sa caay tere faale war nga jëri fii la fii la juma bi ñëpp di xaar li lu ma